nañ ko on reprendra le pour dem à des élections vous ne pouvez pas déglu ma non danga may déglu a def lu leen ko may mun man je parle pas de moi li may wax non yéen waa Benno Bokk Yaakaar ak seen i partenaire de circonstance ma ne Abdou Mbow yéen Benno Bokk Yaakaar ak seen i partenaire de circonstance bu leen neexee ngeen dajaloo baara yëgoo réew mi waaye bu boobaa tamit y a des moyens de recours dafa mel ne da am dañ laa yónni. kenn yónni wala dafa am ku lay waxloo. kenn yónni wala dafa am. yow xam nga man kenn du wax waxloo apparemment on dirait que. ma ne kenn yónniw ma waaw déglu ma rek may mun a. mais attends on est dans un état organisé le juge électoral suprême wax l' article constitution mu ne kii lu mu wax kenn du ci teg dara yéen for de votre majorité ngeen bëgg entre hommes politiques ngeen baara yëgoo réew mi mais Abdou Mbow réew mi dafa am nu muy doxee dafa am yoon te conseil bi war na leen ko ah. liste candidats yi du changé dañ leen ne ngeen fixer la date des élections dans les meilleurs délais fixer la dat des élections dans les meilleurs délais si vous voulez service à ce pays parce que problème amul woon avant avant avant le avant ñuy commencer avant le 3 février problème amul woon les Sénégalais étaient prêts à aller aux élections ngeen yéen a reporté bi réew mi tàq ñëpp di ñu signe ñëpp signe ñu fan nga coow li am conseil ñëw arbitré remettre ñëpp à leur place opposant yi ne Macky Sall bu toogee au-delà du deux il illégitime ñu ne leen non article 36 may na ko mu toog jusqu'à la passation de service avec son successeur waay waay ngelaw waay respecté leen li li texte yi wax non j'entends une femme politique parler boo dee poser question nga wax mais pour pour pour pour le Sénégal on deviendra des politiques s'il la faut parce qu'à un moment donné il faut dire les choses ma il faut dire les choses à Sénégal xam nga man mënoo ma. gënu leen ñu bëgg réew mi de xam nga man gënoo ma sorti mënoo sorti xam nga li ngay def nii. waaw mënoo mooy mënoo mënoo ñu jox leçon de morale. moi je ne vous donne ah ah, bu fekkee ne aussi bëggoo noppi ñu arrêté émission bi parce que man aussi je suis pas venu ici pour polémiquer dama ñëw pour wax ak sénégalais yi loo xam ne mën nañ ko dégg su fekkee ne. dañu ñëw pour nga polémiquer wala nga nekk femme politique am ñu la yónni wala nga am looy waxal nga def ko man je viens pour parler aux parce que loolu moo ma fi indi. ñëw ma fi bref non non s'il vous plaît may mun a du yow yaa may wax vraiment li ma war a il faut qu'on se respecte xam nga sànq ba léegi yaa ngi utiliser de gros ay ngor waxuma la dara te vraiment nit boo nekkee kilifa nga nekk jigéen. am na loo xamante ni suñ la ko joxee comme cër war nga ko jox. Sénégalais mais ngor du gros mot waaw non si si si. parce que dundoo noonu la ko waxee moral mooy ngor. je pense que. moral mooy ngor. may mun a je pense que dañuy waxtaan. te ba léegi jàllu ma la baat boo xam ne. mën naa jàllu ma la baat moral mooy ngor Abdou Mbow. bon maa ngi lay déglu booy laaj nga laaj ma tontu la. parce que yi la ñuy waxal. non mais dama bëgg mu leer moral mooy ngor. on n'est pas là pour polémiquer. moral mooy ngor. s'il vous plaît on n'est pas là pour polémiquer bu fekkee da ngay xam nga da nga invité may laaj ma tontu la pour sénégalais yi. vraiment c'est regrettable qu'on soit là sur un plateau di waxtaane réew mi mu doon loo xamante ni lu am njëriñ la ñu nekk fii. di polémiquer ngay parce que man li ma xam ak émission yi ñu mën a def yépp da ngay laaj ma mais ay mu gënu leen ñu bëgg réew mi je pense que fii kenn bëgg gënu fi bëgg réew mi xam nga bu ma bëggee toog fii nga bëgg ma jox des leçons de morale c'est même manquer de respect à ma personne parce que li ngay wax ak li ngay xalaat man maa la koy wax. waaw non déglu ma rek li may wax naan ma ay woy gën leen a bëgg réew mi. Ah, ay naan c'est dafa mbir mi dafa leer nit ñi xam yoon bi. yow nga ñëw naan ñu bu ñu bu ñu dialogué mën nañu tëggaat fan ngeen di jaar alors que conseil constitutionnel wax na man dama bëgg nga wax ma fan ngeen di jaar. Maïmouna je vais te dire quelque chose la décision du conseil constitutionnel muy yow di sa moroom ak benn sénégalais amul ku a wax ne. conseil constitutionnel nee na nañu organiser élection yi ci base yi amul tu ne peux pas me le dire mënuma ko génneel sa moroom mënuma ko génneel xam nga wax ji mooy lan mooy le président de la république comme il l'a dit il a pris acte et il va faire un dialogue avec les acteurs pour déterminer les conditions dans les on va aller aux élections mooy mun a loolu mooy am alors déglu ma non tous les acteurs politiques je vais vous dire quelque chose Maïmouna gis nga président Macky Sall amul kenn nii la pression populaire nii la clameur bu mun a tax li nga xam ne moom la war a def pour réew mu def parce que xamul tax c'est quelqu'un boo xamante ne ni ba muy jóg di wut réew mi ñu bari ñi nga xamante ne ni ñi ngi woon ci réew mi tey engagement bi nga xamante ni jël na ko vis-à-vis des Sénégalais engagement boobu amuñu ko woon te amuñu woon aussi cette détermination pour aller de la l'avant ça c'est un deuxièmement le président de la République Macky Sall encore une fois de plus bu fekkee ne par exemple aujourd'hui jël na acte de la décision du conseil constitutionnel l'assemblée nationale jël acte de la décision du conseil constitutionnel moom ci boppam mu commencé di waxtaan ak les acteurs vous avez vu qu'il a commencé à recevoir les acteurs politiques sénégalais yi benn pàcc moomu ko sénégalais beneen pàcc moomu ko sénégalais Sénégal Sénégal yëpp ko le président de la République en tant que président de la République il l'avait dit et aujourd'hui il est en train de l'exercer en disant que tant à la tête de ce pays j'exercerai pleinement les pouvoirs que la constitution m'a la constitution m'a donné aujourd'hui c'est ce qu'il est en train de faire il pouvait choisir la voie la plus facile mooy lan coow am le 25 février mu ne damay organiser ay élection après ku mënta gagner mu dem bàyyi fi réew loolu moo gën a ñoom mais le président a accepté de prendre un coup par rapport même à sa réputation pour que ñu am réew moo xamante ni dañuy am ay élections yoo xamante ni day doon ay élections apaisées libre transparentes inclusives pour que moom ci boppam mu bàyyi fi un héritage boo xamante ni dañuy am un pays apaisé boo xoolee ces deux semaines la tu as vu que les tensions mi ngi wàcc. tu as vu nit ñi ñu ngi revenir à la raison. parce que le conseil parce que non non non non non non dama ne. jour bi conseil dama ne bi conseil waxee. yow soo xoolee ambiance bi amoon ci réew mi su dee nit dëgg nga rek bi nga xam ne ambiance bi amoon ak euphorie bi amoon ci ñenn ñi dal lañ parce que xamul tax parce que souvent les gens dañuy jël benn décision génn rek ñu commencé vous avez vu toutes les télévisions dañ doon def direct. Euh, nga gis nit ñi di wax à gauche ma rek nga gis nga gis nit di wax à gauche à droite mais li ñu doon wax aujourd'hui boo xoolee tey les discours qu'ils tiennent nga xam ne ils ont totalement changé parce qu'ils sont revenus à la raison ils seront redescendus sur terre parce, que, le conseil a joué son rôle d'arbitre non déglu ma non non non non du jeu parce électoral que, non, parce que le président de la ah. République ah. le a joué non, ah. a été un grand homme moo tax tey ñu am ce pays nekk aujourd'hui dans cette situation et loolu daf koy continuer en concertant se concertant avec les acteurs comme ni ma la ko waxee réew mi kenn moomu et le président de la République continuera à faire une concertation te li ma lay wax nii du ay Benno du ay Yewwi du ay Wallu du ay keneen ak keneen ak keneen xam nga kan la les sénégal En, en, euh, il va faire ses concertations, il va fixer la date des élections, il va mener tout le processus en se conformant aux dispositions de notre loi constitutionnelle. Ça aussi, c'est bon, c'est bon, à, c'est bon à ajouter. xam nga Maïmouna. Mhm. yow du yaay jàngal président li muy def. non je n'ai pas la prétention rek du yow ah, wuy ma du yow yaa ko koy wax. <laughs> du yow yaa ñu koy wax. du yow yaa ñu wax ligne bi ñu war a jël. vous avez assez de boo amee sa boo amee sa ligne ak sa xalaat ak sa waxtaan mën nga koy wax fu la neex mais Macky Sall nit la koo xamante ne ni li muy liggéey ci réew mi di ko représenter sur le plan international amul leçon de morale à recevoir de kii que ce soit en matière de démocratie ou d'état de droit amul amul et aujourd'hui ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom. amul dara lu tax ñu war a mën a génn naan dañuy raser les murs non du ñu ko def xaar amul mm-hmm. tax mais où, où sont les gens de votre camp pourquoi ils ont déserté les plateaux xam nga xam nga est-ce qu'ils peuvent défendre certaines décisions non déggoo li ma la wax dama ne man li may wax may mun a du yow comme na ma la waxee du keneen ku ko mën a dindi parce que ci yoon laa ko teg lépp lu ma la wax dama naan la article bii lii la wax maintenant nag la loi est rendue au nom du peuple sénégalais suñu rendre la loi ba pare ku ci nekk am nga sañ-sañ wax ci sa xalaat yow mii di journaliste des fois ñu rendre ay décision de justice nga wax ci sa xalaat et pourtant du bokk ak xalaat bi nga xamante ni moom la keneen am et pourtant vous êtes journaliste mais vous avez votre mot à dire par rapport à ce qui di comme décision de justice parce que c'est rendu au nom du peuple sénégalais moo tax tey jii cette décision du conseil constitutionnel mais ku ci nekk yaa ngi ciy wax sa xalaat parce que même si c'est pas susceptible de recours ku ci nekk am na ci sa xalaat maître du Ndoye laa di hier ne y la lettre et l'esprit mu am loo xamante ni doo ko mus a gis ñu bind ko ci biir loi mais dañuy wax ne nécessité parce que wax nañ nécessité fii parce que dafay am en situation exceptionnelle nga xool exactement lan moo tax ñu war a mën a def dara pour le bien des peuples parce que wax naa la ko sànq ci sama biir wax ne la la loi mais mooy mun a elle pour servir les peuples et non le contraire maintenant bu fekkee ne dañu gis defar ab loi pour servir le peuple ñu dem ba benn moment jëmmi jamono ñu xam ne lii kat war nañ ko mën a joyanti ak waxtaan mais du waxtaan pour dem vers l'essentiel mais Karim Wade ak Khalifa Sall pour que ñu nekk aujourd'hui candidat on n'est pas allé autour d'une dialogue waxtaan fa tënk jël loi yóbbu ko à l'Assemblée nationale ñu vote ko mais c'est parce que dans un pays comme le Sénégal qui a une tradition longue de dialogue waxtaan je pense que dañu ñëw ba fii président de la République fekk fi réew moom defar li nga xamante ni defar na ko ci bopp réew mi ba pare daal na nag toll nañ ci jamono boo xamante ne nii du ñu am problème parce que damay fàttali ne may mun a décision conseil constitutionnel bi mu ko jëlee xam nga tey ñi ngi wax ne bi ni euh, retiré na démb candidature mais c'est parce que y a un problème par rapport à la décision mais loolu loi bi am na loo xam ne wax na ko ci te décision bi nga xam ne conseil constitutionnel jox na ko rappelé na disposition yi nga xamante ni moom mooy encadrer le retrait d'une candidature qui poursuit le processus électoral donc pour vous dire lépp loo gis. mais Abdou Mbow am na foo xamante nii fa la sukkandiku am na cës cëslaay goo xamante nii ca lañ ko teg mais loolu ñu ko teg c'est des lois ak réglement yoo xamante ni dañ ko voté mais bu ñu tollee ci fenn fi nit ñi dañuy toog waxtaan lan moo indi ay modification loi lan moo indi ay jooyanti loi mais parce que jamono dafay dox te jamono bu dee dox nit ñi dañuy toog wax ne lii moo méngoog jamono ñi indi loi boo xamante ni dafay ñëw ci jamono boobu boo gisee tension bi wàcc parce que conseil constitutionnel li mu wax dafa dalal ñëpp parce que dañoo amoon ñaari camp yu jàmmaarloo woon ku ci nekk di interpréter mbir mi nu mu la neexee président posé acte assemblée posé acte conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy euh, veiller euh, sur la constitutionnalité des lois mu départagé xam nga yow wax naa la sànq ne ñun bu ñu nangul woon xam nga sànq moo tax bi may wax nga bëgg a jaxase naan ah non boo fi waxee da ngay dama la doon expliquer ne su fekkoon ne ñun du ñu ay républicain nanguwuñu état de droit wala nekk na nit ñoo xamante nii dañuy nekk naan dañuy jafante di topp ay clameur populaire ak yooyu je pense que mën nañ def loo xamante ni ëllëg mën nañ ko regretter mais du ñu ko def parce que xamul tax yoon dafa am loo xam ne moom la ñu may. parce que le Sénégal n'est pas une démocratie bananière. c'est que waxuma ay non. parce Sénégal est une grande démocratie. attends nga nga xam ne. cette mënu leen ko. cette grande démocratie là non dama bëgg nga déglu ma cette grande démocratie la dañu bokk ci ñi nga xam ne dañu ko suuxat. cette grande démocratie là moo tax déglu ma cette grande démocratie may mun a dañu bokk ci ñi nga xamante ni dañ ko dox. cette grande démocratie là dañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo woote loi yooyu pour mu am. cette grande démocratie là le président Macky bi nga xam ne moo nekk à la tête de ce pays a été un des grands hommes de ce pays qui a travaillé à que cette démocratie euh, euh, à ce que cette démocratie puisse aujourd'hui rayonner encore de par le monde cette grande démocratie là on fait partie ah, des si hommes vous, et des femmes si non déglu ma dama ne cette grande démocratie là on <laughs> fait partie des hommes et des femmes qui ont travaillé à ce que aujourd'hui ñu mën a am un pays boo xamante ne ni président de la république dafay abroger loi assemblée nationale voté loi conseil constitutionnel ñëw ne dàq naa ko président jël acte assemblée jël acte ba pare ñu continuer di doxal réew mi am ci jàmm. d'accord loolu loolu moom d'accord naa ci. ni nga ko waxee noonu la mais boo leen jëlee acte waru leen yem ci jël acte. oui acte yi ngeen di jël pour la suite. dafa war a conforme aux dispositions. de la constitution constitution te bokk na ci bokk na ci li nga xam ne moom la conseil constitutionnel délibéré. mooy lan. quel que soit votre vœu. mooy lan. Euh, la la liste des la liste des candidats. Oui. quelle que soit votre volonté d'avoir une élection inclusive d'avoir une élection boo xam ne euh, Karim Wade dina ci bokk parce que tamit euh, ce qui lui est arrivé est une injustice d'avoir une élection boo xam ne Euh, xëy na Sonko euh, dina ci bokk euh, pacifier espace bi boolewaat lancé waat processus bi loolu ça se heurte à la constitution de ce pays-là en son article 92 qui dit que même les erreurs du conseil constitutionnel pour paraphraser comme l'a dit une fois Isaac à, à Senghor même les erreurs du conseil constitutionnel s'imposent loolu moo tax démb Maître Doundoye ma ne ko le cas Rose Wardini

moo tax ma ne la affaire constitution tegu na fële xam nga fi mu toll nii fan lañ toll waxtaan pour xool comment organiser des élections yoo xam ne réew mi day nekk ci jàmm gis nga may mun a sénégalais yi soxlawuñu coow sénégalais yi soxlawuñu réew mu tàkk sénégalais yi soxlawuñu élection boo xamante ne après réew mi day. mais kan moo créé les conditions de cette instabilité de cette tension politique. qui l'a créé xam nga xam nga saytaane mooy def bu mbir amee ba pare. du lijjanti lu ko susut mais day loolu la nga xamante nii moo ko indi tey jii seytaane yooyu dañoo war a noppi ñu lijjanti xam nga mooy lan mooy nan la ñu war a def pour que réew mi mën a am jàmm mooy mën nga mën a liggéey tranquille ci sa rajo beeg sa télé bi man ma mën a continuer sama liggéey ci assemblée nationale loolu la ñëpp bëgg a am keneen mën a donc loolu xam nga lan moo koy indi waaw ñu encourager président ne ko ñii nga xam ne yaa ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi ñaan ngeen juboo ci loo xam ne dina tënku ci yoon dina dalal réew mi dina am ay élections. mais c'est ce qu'on vous dit. waaw déggoo li ma la wax dama ne. <laughs> man loolu ba ñu commencé ba léegi dama ne ba ñu commencé ba léegi. ci loolu laa wax président de la république du def lu tënkuwul ci yoon. ah waaw déggu euh, non dama ne. reprendre processus bi moom dama ne tënkuwul ci yoon. dama ne loolu sa xalaat la xam nga la moo tënku ci yoon. mooy lu ñu waxtaane ba juboo ci. su boobaa loolu mooy dalal réew mi. parce que nee la sànq on peut du cadre législatif du cadre juridique pour aller vers des grands consensus waaw déglu ma déglu ma déglu ma pour dem xam nga ban légitimité lañ am. ils ne nous représentent pas ils ne sont pas représentatifs de tout le peuple tu es contradictoire parce que yow léegi yaa ngi wax ne les les candidats yi nga xam ne xam nga yow bu la arrangé nga ne waaw les candidats après nga ñëwaat daan ne candidats yi ils représentent quoi xam candidats yi lan moo leen jox la légitimité parce qu'ils ont été retenus par parle pas des candidats retenus par le conseil seen waxtaan boobu laa wax les acteurs yi ngeen ci bëgg tous les acteurs kan la ñu représenté tous les acteurs yi nga xam ne ci réew mi lañu bokk am nañ ci kàddu yow mi nga xamante nii sax ab journaliste nga am nga ci kàddu keneen ku nekk am na seen waxtaan politique yooyu en quoi est-ce que moi ça m'engage c'est que yow yaay wax waxu politique xam nga ñun lan la ñuy wax réew mi may mun a ñun dépassé nañ ay waxtaan politique politicienne xam nga ci mu toll nii ci lan la ñu nekk nan la ñu war a def parce que la responsabilité qu'on a sur nos épaules mooy que réew mi mën a am jàmm que économiquement li nga xamante ni UEMOA wax nañ ko barki démb nan lañ koy confirmer nan la ñuy mën a def pour que liggéey bi nga xamante ni président de la république tàmbali na ko ci réew mi nan la ñuy mën a def ba loolu mën a continuer jàmm ji nga xamante ni ak modèle démocratique bi nga xamante ne moo am Sénégal nan la ñu mën a def ba mu continuer nekk une vitrine nan la ñu war a def pour que li nga xam ne moom mooy situation sécuritaire bu sayal bu compliqué bi nan la ñu mën a def ba suñu pays continuer di ci mujj loolu mooy suñu responsabilité te waxtaan boobu dafa doon waxtaan boo xam ne dafa am solo ci ëllëgu réew mi moo tax il faut que les gens comme ni ma la ko waxee ñu dal xam ne président de la république il n'est pas là pour se maintenir au pouvoir parce que c'est une hérésie de le penser. mais il n'est pas parce là pour imposer la là... liste des candidats devant participer à l'élection. xam nga aussi je pense que. ah si xam nga ay imposer bu ah, doon bu doon imposer. ah si wala dégg ma ah, li ngay wax li ngay <laughs> ah si li ngay wax nii. du moom mooy décider. li ngay wax nii amul prérogative constitutionnelle décider de qui va participer ou pas. c'est la loi qui décide. la loi a décidé mais ngaa dégg mos ngaa dégg président de la république. non dama wax rek mos ngaa dégg président de la république. parce que déglu ma non dégg président de la république. wala ku ko jege ne mooy choisir ay candidats. conseil constitutionnel bu décidé. ñu ne élection bi dafa desee inclusive euh, le le cas Karim Wade Benno Bokk Yaakaar lënk lëkkaloo ak parti démocratique sénégalais moi j'adore Karim Wade j'aime beaucoup Karim Wade te li ko li ko dal metti na trop mais la loi est la loi et Karim Wade ne vaut pas plus que le Sénégal conseil constitutionnel bu décidé ñu ne waaw dañuy def ñu commencé ruumandaat dañuy def loi d'amnistie ñu naan ah lan lan lan lañ ci bëgg ñu ne ah est-ce que son Sonko waruñ ko jox chance mbokk non le conseil constitutionnel a décidé le président de la République doit se plier à la décision du conseil constitutionnel non mais man je suis. leen di waxtaan nag na tënku ci conseil constitutionnel je suis maintenant choqué maa la ko waxaat. waaw xam nga ce qui va se passer mooy président de la République li mu d'accord ak acteurs yi loolu mooy am.